rahmaani rahiim alfiyatu ibnu malik ibnu malik muhammad moo di turam malik maamam la muhammad ibnu abdullahi ibnu malik wax na ci tarjamaam ni nee na dimashq sham la faatoo ndax dafa toxoo woon jayaan ci landulus bilaadu Espagne foofu la dëkkoon fu ñuy wax jayaan waaye nag toxoo woon na fa dëkki bilaadu sham ba ma nga faatoo dimashq atum juróom benn téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar fekk mu amit moom juróom ñaar fukki at ak juróom loolu la dund taxu koo gudde fan noonu juróom ñaar fukki at ak juróom la dund gudd na fan sax ndax ku ma passé juróom ñaar moo tax benn waaye nit tuwuffiya ibnu malikin fii xabaa wa huwa ibnu ah kaza xaka man qad waa tuwuffiya ibnu malikin fii xabaa xabaa xaa juróom benn téeméer la baa ñaar ayin juróom-ñaar fukk mooy li mu wax ci sara bi rek wab wax wab nu ah doomu ayin juróom-ñaar fukk xaa juróom mu juróom qaala wax na ibnu malik bismillahi rahmaan rahim qaala wax na muhammadun muhammad huwa moom ibnu malik mooy doomu malik malik gay maamam muhammad ibnu abdullahi ibnu malik lu mu wax dafa ni ahmadu maa ngi sant rabbi sama boroom allaha yàlla xayra malikin ngeen ji aji moom ji nga xam ne mooy yàlla maa ngi koy gërëm maa ngi koy sant léegi nag kooku mooy maxki yu xawli bu ñu la nee lu mu wax nga ni dafa ne ahmadu rabbi laaha ah waaye kon day dem ba ci cataltéer bi lépp ci maxki yu xawli bi la bokk ba téere bi jeex nee na musalliyan fekk maa ngi julli it mbir mu may di aji julli ala nabi yi ci yonent ba al mustafa kadi ku ñu tànn al muxtaar maana wa alihi ak famiyam famiyu yonent ci wàllu ñaan mooy bokki alam mooy famiyam ci boppam ak képp ku ca topp ba jullit ñi ba yowmal qiyaam bu dee ñaan rek bu fekkee na nag ñi nga xam ne kenn du ñu lekk sarax daganul ci ñoom hadiya lañu leen di may alal sédd leen ci baytamaal lu ñu leen di may at mu ne waaye du ñu lekk saraxi nit ñi ndax dañu ni tilimu nit ñi la li anna sadaqaati aw saaxu naas ñooñu kon mooy ñu gëm ci bani haashim képp ni koy jullit ci bani Hachim maama am ñu ni muttalib mi nga xam ne moo Hachim a bokk benn baay bi ñoo bokk Abdou Manaaf moom it ay sëtam ci la bokk waaye kon it ñooñu dong lay doon ah wa alihi fii nag barabu ñaan la al mustakmilina ña di wa ay ña di way mottali al sharafa tedd nga mustakmilina mën nañu ko def ismu fail wa alihi al mustakmilina comme kii ni mu maase mën nga ko def ismu maful wa alihi al mustakmalina waaye kon de sharafa léegi dootoo ko wax shurafa ngay wax benn wa alihi al mustakmilina ña di way mottali sharafa tedd ga ñu amoon naka jekk ci mbokk gi ñu bokk ak muhammad alayhi salaatu wasalaam ci arabiya géeg ci qurashi gi wala ba ci hashimi gi ci ñenn ci ñoom kooku kon amoon nañu sharaf suñu dikkee nag gëm ko topp ko kon mottali nañu tedd nga ga kooku ci kaw soo jàngee mustakmilina ña di way mottali lu ñu mottali ak sharafa tedd nga ga ñu amoon jeeg ci jege gi ñu jege muhammad alayhi salaatu wasalaam bañ a mel na abu lahab nag xanaa gëm ko topp ko kon mottali nañu seen sharaf waaye abu lahab perte na sharafam mottaliwu ko ba nga xamee ni dafa alku ci kéefar kon loolu mooy maanaam mustakmilina ama boo jàngee wa alihi ak ñoñam al mustakmalina ña di ñu ñu mottali ku leen mottali seen borom mi leen dugal ci lislaam aywa nga daal ni ashurafa u ña di way tedd jam u sharifin xam nga ni baat yi bokkul kon ndax boo nee sharafa masdar la soo nee shurafa nag jam u sharifin kooku mustakmalina lay àndal ñaari nusxa yooyu noo ko ci jàngi baax wa alihi mustakmilina sharafa wala wa alihi mustakmalina shurafa wa astainu maa ngi sàkkoo dimmandiko maa ngi dimmandikoo allaha yàlla ibnu malik ne fii alfiyatin ci taalif qasida maanaa way téere buy kojug junni alfiyatun nag nisbatun ila alf wala ila alfayni wala ila alaaf xam nga boo dee dana wax ci baabu nasab ni wal waaxid adkur naasiban lil jamci in lam yushaabih waaxidan fi lwadci dana ko wax moom ci cataltee bi ci buntu nasab soo doon jam sooy askani jëm caat moog booy askan jëm ci mufrad mooyam rek du dëgg bu bon nag li nga xam ni ci arab yu mujj yi da ngay dégg arab yi jamono ñu naan kutubiyu kutubiyu nisbatun ilal kutub maanaam jaaykatu ay téere kutub jamu kitaab ñu naan kutubiyu te bañ ni kitaabi yu kooku waxin la arab mu xëy na dañuy bañ jaawale ko kitaabi yu joo xam ne mooy ku bokk ci ahlu kitaab xëy na ndax waaye askane jëm ci kenn léegi fii alfiyatin mën na am ci xasida buy alf bayt wala xasida buy alfa alfa bayt xasida buy ñaari junni ndaxte ab rajas la mën na am ñaari rajas yu ne benn bayt la mënees na jàpp ne tam ñaari maanaam ñaar bayt bayt wu ne wu ci wa ci daaneel bu ci ne ñaari bayt la mën nay benn léegi mën nga ne qaala muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah xayra malik benn bayt la loolu la niru nag ndax daaneelu xaraf wenn wi musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustaqbili sarfa di beneen wala qaala muhammadun huwa ibnu malik rek di bayt ahmadullah rabbillah rek di bayt te kon boo ko defee ñaari junni la téere bi doon lu mu ci mën doon alfiya moom attewul ci dara ndax nisbatun ila alfin waxidin alfiyun ngay wax wa ila al alfayni wala alaafit alfiyun rek nga war a wax ci arabiyin alfiya bopp maqaasidu naxwi ay jubluwaayi naxwu yañ cay jublu bëgg koo xam maxwiyatun yu ñu dajale la bihaa ci moom yu ñu ko ëmbal la waaye nag itam mboolem maqaasid yi benn téere mënu koo dajale de waaye nag kon yi ci ëpp importance nga xam ni moo ëpp solo ci li ñu doon jublu lépp ci naxwu ma ngi ci loolu li ko leeralaat wax na ci catal téere bi ba muy jeex ca bayti yu mujj ya mu ne nazman ala jullil muhimmaati istamal nee na nazman def naa ko muy way yoo xam ni istamala lamboona ala jullil muhimmaati ci la li ya la ëpp ci yi ya ëpp la ëpp ci yi ñu yittewoo ci nax wu andi naa ko ci xanaa xam nga ni kooka moom firi na dëgg li am kon fii bu mu nee lamboona maqaasidu nax wi jubluwaayu nax wu yi ah ñu man ni jubluwul lépp lépp nag ndax ca cat la leeral na ko ba mu ne li ëpp ci muhimmaat yi def naa ko ci waaw kay muy alfiya bopp bokk na ci ay meloom alfiya bopp tuqarribu dafay jegeñal jumla ji naat la ci alfiya tuqarribu bopp day jegeñal al aqsa la sore woon ci maana dégg nga ci atte dana ko jegeel bi lafzin ci kàddu moo jësin bu ñu gàttal maanaam du doon wax ju gudd ju xaabaabal day doon wax ju gàtt te am mën a indi maanaa ya loolu mooy ijaaz ijaaz mooy wax joo xam ni sax mën na ëmb maanaa yoo xam ni bare kàddu wax ja wax ja koy biral waroon na mën gën a gudd jooju sax waaye teewul nga gàttal ko te maanaa ya yëpp dik loolu mooy ijaaz wa taqtadi te wa tabri surtout te day yaatal moom alfiya bi albazla li muy joxe ci atte di la ko xamal dala koy jox bi waadin mun jësin ci dël bu ñu teewal fi saasa maanaam li mu bëgg a wax dana yomb yombi nu boo ko jàngee dal koy dégg fi saasi du du doon li ñu naan jàng ren dégg déwén déedéet jafewul jafek nga di ko jàng doo ko mën dégg kon moom nee na yaari ngëneel a ngi ci dana la jegeelal atte yu sore woon ci kàddu yu gàtt te itam maanaam bi mu lay joxit dël bu ñu teewal fi saasi lay doon maanaam da nga koy dal di dégg yóbbu ko fi saasi du jéeg du doogee ni loo ñu naan jàng ren dégg déwén ci aaday wolof yu njëkk yi wa taqtadi day sàkku mbaa nga ne day laaj nag ridan ak daag kontaan ci ñi koy jëfandikoo war nañ ci kontaan bi xayri suxtin ci lu dul mbañeel lu dul di ko bañ di ko jéppi kon loolu la yelloo gannaaw moom nii la muhimmaat yi li ci ëpp ëmb na ko te itam maanaa yu gënoon sore dana ko indi ci baat yu gàtt ba yeggal itam da dafay leer nañ nga dal koy dégg fi saa si mel na lu ñu la jekkiwul li ñu la doon dal dañ la ko jox léegi nga yóbbu kon kon dana yelloo te mu yelloo tam ñu kontaan ci faiqatan muy aji kawe nag alfiya tam ni muati alfiya limaamu yaxya ibnu muati yaxya ibnu muati moom nee na misra la faatoo moo jëkk a faatu kii nag ndax moom atum juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett kee faatu atum juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar moo ibnu Malik foofu nag mu dellu ni wax wa moom ak alfiyatu moom moom Yaxya ibnu Mu'ti kat xam nga bi mu nee sama alfiya bi kawe na alfiya ibnu Mu'ti loolu mel na na damu na ci kaw ku ko jiitu woon. loolee nag dellu na ci lii mu wax mel na nag dana ko gën a rafetaata taggaat ko ni wax wa moom nag xaaisun ku làq la tafdilan ak ngëneel gu ko yàlla gënal bi sabqin ci sababu jiitu gu ma jiitu tafdilan gi bi maanaa fadlan rek nag ah waaye eh, tafdil gu yàlla gënal jaamam mooy waral fadlu gu jaam bi am kon moom sabab bi la tudd wal muraadul musabab xaaza fadlan min allaahi fa xaaza fadlan bi sababi tafdilillaahi lahu nee ñu nag foofu nettali nañu sëriñ si da nett nañu fi ni ba mu taalifee ba ba ni faiqatan alfiyat ibnu mu'ti dégg nga ba ba jàll tegoon na ca lu dul waxwa bi sabqin nee nañu daf caa te tegoon ni faiqatan minhu bi alfi beyti loolu nag nee nañu mu nelaw guddi gént gis boroom jëmm maanaam ibnu moti la gént gis ibnu malik di ko netti ko man daal maa ngi taalif ab maa ngi taalif ci naxwu mu ni ko waxal ma ma déglu nee ñu mu tàmbalee ci bopp bi ba ni faiqatan alfiyatam ni muti li mu ci tegoon daal di ni faiqatan minhu bi alfi bayti nee ñu mu ni ko daal di ni tekk nee na ki mu gé ci gént gi mu ni ko waxal mu jéem-jéem mënul dem mu ni ko mënatumaa jàll mu ni ko teema la koo jàllaleel mu ni ko waxal mu ni mu ni ko da nga koy mottalee ni wal xayu qad yaglibu alfa mayti waaw fekk moom faiqatan minhu bi alfi bayti genn wàllu way woowu mu ni ko yeggale mu ni ko teem waxal mu ni ko mu gàgg mu ni ko teema la ko yeggaleel boobu mu ni ko waxal mu ni ki ma gis ci gént gi ni ko da nga naan wal xayu qad yaglibu alfa mayti maanaam koy dund bu war naa man junni ñu dee bu ko neexee ni maa man diwég diwég diwég diwég ndax nekkuñu fa dig nee ñu ba mu yewwoo mu xam ni kon ki mu gént gis ibnu moti la xëy na leen ni mu wax moo jaaduwul nee ñu mu bàyyi mu dindi loola faiqatan minhu bi alfi bayti mu dindi ko daal di ni wax wa moom nag xaaisun ku làq la tafdilal ngeneen bi sabqin ci sababu jiitu gi mu jiitu waaw loolu xikaaya bu sëriñ si di nettali mustawjibun ku yelloo la moom ibnu moti sanaa iya samaw tagg aljamila wu rafet wallahu yàlla yaqdi yàlla na atte feelu mudaari'u mi jumla du'aa'iya la wallahu yàlla yaqdi yàlla na atte lii ñeel ma wala hoo te ñeel ibnu mu'ti bihi baatin ci ay may yàlla na ko yàlla atte waafiratin yu mat sëkk lii ñeel ma wala hoo ak ibnu mu'ti fi darajaatil aaxirati ca darajay alaaxira sëriñ yi koy jàngale daan wax ni walaw qaala wallahu yaqdi bihi baatin waafira lii walahu wa li jamii l umma nee ñu kon mu gën li ann al taamima fi duaai matlubun lil xadiisi adduaawu ida amma nafa wa ida xasar tafa di dégg alkalaamu lii moo di kalaam wa maa yataallafu ak la nga xam ne kalaam dana taalifoo minhu jóge ca loola te mooy lisim feel xaraf ci yooyu la kalaam di taalif kon nag tarjamay kalaam ak la muy juddoo ci moom te mooy lisim ak feel araf yooyu la tarjamaal moom lay leeral ci bunt bi mu ni kalaamu naa sunu kalaam nun ñan nun ahlu naxwi ñiy jàng fànnu naxwu daal ñoo ko tax di wax lafzun mooy lafz bu ñu nee lafzu nag mooy kàddu gu génne ci gimiñ doon ay xaraf kàddu lu dulu kàddu kenn du ko wax lafz soo ma dee laaj ana nangam ma fotte su joxañ la loolu du lafzu jógewul ci gémmiñ loolu du lafzu ishaara la aywa ba yeneen yeneen li sa xel di wax boo ko mënee tudde kalaam it du lafzu daal kon du kalaam bi nax wi wax du dëgg du dëgg te mën ngaa wax ni sama xel dafay wax ni nangam yaa ngi ko tudde kalaam te kooku ay xalaat la waaye kon du lafzu aywa lafzu lay doon mufiidun bu am faida am na yeneen yoo xam ne du lafzu kat dama gàttal wax ji rek ndax ishaaratu junj ni ki ñu ñu ñu joxañ la ni la nga ni ana nangam ñu ni la loolu du lafzu nas bu samp ni ki nga dikk ci jàkka fekk ñu samp mihrab nga daal di ni ah kii kat nee nañu kii kat nee na penku baa ngi nii daal di ko tudde kalaam te moom waxul dafa samp bind noonu diw de laa bindal dara nga daal di diw kat kalaam kàllama nii nangam fekk na loolu bonit du kalaam ci naxu kalaam ci naxu daal bi nuy jàngale mooy lafz lafz nag sawtul xaariju min al fami al mustamilu ala baadi al xurufi al hijaiya kàddu gu génn ci gémmiñ te yor ay xaraf kon lu dul kàddu li kii doon wax génn na ci bu dee kàddu ti génnewul ci gémmiñ génn na ci soo jekkee ni nii laf sawtu bu ñuy dégg ngoog kàddu la waaye génnewul ci gémmiñ su génnee ci gémmiñ àndul ak i xaraf ba tey duñ ko wax laf nga jekki-jekki ni loolu kenn mënu ko bind du ay xaraf kon te ci gémmiñ la jóge lafzu mooy kàddu gu génn ci gémmiñ doon ay xaraf tey bu boobaat mu fii dun balay doon kalaam waxuñu ni foo fekkee lafz muy kalaam de kon boo nee zeydun kese mbaa dara ba kese muy laf muy muy muy kalaam déedéet na fekk itam al mufiid muy do mu doon faida dégg nga kañ lay doon faida munu la am faida mukk te nekkul murakkab gis nga mu faf murakkab jooju aajaroo ma def benn fasalu ñaareel ni kalaam mooy al lafzu al murakkabu al mufiidu murakkab boobu mu ñaareelee kii moom tudd ko ndax doyloo na ni kalaam munta am faayida te du mu rakkab benn baat rek munta am kon boobu moom doyloo na misaal mi daal lafzun mufiidun mu rakkab lay doon tuddul mu rakkab waaye bi mu nee kastaqim ni ki boo nee istaqim jubal istaqim mu rakkab la lafz la am na faayida mu rakkab la ndaxte damir ji benn baat bi mooy anta ji mu nëbb istaqim anta kon léegi day am kalaam boo xam ne zaahiram benn baat la waaye fekk na murakkab la ni ki xum jógal murakkab la ndax feelu qiyaam bi di xum ak anta ji damiram ji nga xam ni ki ngay waxal dégg na ko ci murakkab lu ne nga ko loolu mooy kalaam mu ne nag alkalimu li ñuy wax alkalimu baat yi ñett la ismun lisim wa fi'lun ak fi'l summa xarfun topp xaraf yooyu yat alkalimu moo di baat yi waaxiduhoo benn kalim kalim moom ismu jins la moo bu la neexee léeg-léeg nga ni jamu la ma ngi mel ni yow mu noon shajar jam kalim jamu kalimatin waaxiduhoo kalimatun bennam kalimatu moom moo di benn baat dong waaye baat su xasee man ñett kalim mangoog aywa wal qawlu li qawlu ji nuy firee wax rek kooku amma matale na salaasata ñett yëpp wala nga ne wal qawlu aammu fi'lu afalu tafdil la woon baatu qawlu aammu moo gën a matale waaye xamsa ga la ñu dindi nag ni ñu ko dindee ci xayrun ak charrun xayrun ak charrun wasnu faalin lañu aywa lu tax mu ne wal qawlu amma matale na ñett yëpp qawlu aammu afalu tafdil la woon ndax léegi boo fekkee benn baat rek mën nga ni xawlu la bu ñu nee zeydun dong du kalaam ndax ndaxte du murakkab du mufiit du kalim ndax matul ñett du dëgg du kali waaw kon kalimatu rek la xawlu la itam nag bu fekkee da nga ni zeydun dong waaye soo fekkee kalaam bu mat ni ki zeydun qaa'imun ba tey xawlu la soo fekkee kalim ni ki lu mat ñett nga ni tey qad jaa zeydun ñetti baat ba tey xawlu la nga fekk kalimatu ni ki zeydun kese xawlu la aywa nga fekk loo xam ne yett yooyu du ca dara ni ki xulaamu zeydin du kalaam ndax amul faida du kalim ndax matul ñett du kalimatu ndax xas na ëpp benn te xawlu la kon nag xawlu am listiraakihi maa kullin fi madlulihi wa infiraadihi bi naxwi xulaami zeydin ku nekk sama la ngay tegtale bokk na ko yow te moom beroo na loo xam ni xulaamu zeydin mënees koo tudde dara ci yett yooyu xawlu rek lañ ko mën a wax kon loolu mooy maanaam mu ne wal xawlu a amu moo gën a matale ñu dindi xamsak a amu taxfiifan ni ñu ko dundee ci xayrun ak charrun lu doon cosaan fulaanun axyaru min fulaanin fulaanun acharru min fulaanin ñu daal di ni rek xayrun min fulaanin wa charrun min fulaanin wa kilmatun baatu kalimatu nag xad yu am mu léeg-léeg ñu jublu bihaa ci moom kalaamun wax léeg-léeg arab ni kalimatu te fekk na kalaam bu bare la ci jublu léeg xutabaa yi da ngay ak ñiy netti dañ jàng ñu ni ñu daal di ni kalimatu fulaan lii mooy baatu diw te fekk na xëy na risaala bu ñu bind bu ni lëng la ay paas mu ni ñu ni kalimatu fulaan kàddug diwa ngi nii tudde ko kalimatu te ay kalaam bu gudd la dikk na ci alquran waqad warada fi lkitaabi kadalika min qawlihi taala kalla rabbi kalla inaha innaha kalimatun loolu ab baat la boo xam ne huwa qailuha te mooy kooka dafa ni rabbi irjiuni laalliya amalu saalihan fi ma taraktu loolu lépp la alquran tudde kalimatu mu ni kalla innaha ni ki loolu kalimatun baat la boo xam ne huwa qailuha loolu mooy li mu ne Eh, ci wàll loolu nag wa kilmatun eh, kalaamun wa kilmatun kalimatu ci boppam xad yu amu léeg-léeg ñu jublu bihaa ci moom kalaamun kalaam jarri wa tanwini wa nidaa wa al wa musnadin li lismi tamyisun hasal mu jëkkee lisim nag lisim feel xaraf mu jëkke màndargay lisim door a dem ci màndargay feel mu ni li lismi ñeel na lisim tamyisun ak ràññi ku ràññi gu ñu koy ràññee ci feel ak xaraf xasala goog am na dégg nga bala neexee nga ni tamyisun xasala li lismi mbaa nga ni li lismi ñeel na lisim muy xabar tamyisun ak ràññee goo xam ne xasala am na muy mubtada mu- mu amee ci lan bil jëri ci jar jar baat ñu ni kon baat ba lisim la ndax jar li arab la ah, dégg nga li raabu lisim la wa tanwiin ak tanwiin kookoo tam bu ñu tanwiinee baat benn ci ñeenti tanwiin yee tax nuy wax de waxunu tanwiin gune gune gune tanwiinu daroora ak tanwiinul xaaleeg yeneen i tanwiin yi moom tekkiwul dara du tax ñu xam baat bi lisim la waaye tanwiinu tamkiin wala gu tankiir wala gu muqaabala wala gu iwat yanti tanwin yooyu moom la ñu moom la ñu wax tanwinu tanwinu tamkiin moo ci gën a pire mooy bi tegtale am kan yëg lisim maanaa ak gën a piireem lisim ya ca des luy gën a piire ga nisu niruwul xaraf ba ñu di ko binaal xañ ko liraab niruwul fi'il itam ba ñu di ko xañ liraab ba gën ci liraab yi te mooy liraab bu ànd ak linsiraaf di ñu di ko tanwiin nag di ko jare kasra mu leen ni lisim jii de am kanu min xayrihi fi baabil ismiyati moo gën a dëgër ci buntu lisim beneen lisim bu dul moom ndax moom niruwul xaraf ba ñu di ko xañ liraab mooy binaal ko niruwul fi'il ba ñu di ko xañ piiru lisim te mooy euh, tanwiin nag jare kasra yooyu maa laan sarif du leen am kenn du ko tanwin kenn du ko jare kasra lu ko ko def kon amul piiru liraab te li ko ko yóbbee mooy niru gu mu niru feel te kooku nag mooy bunt boobu nu doon jàngale kon tanwiinu tamkiin mën na nekk màndargam lisim mooy boobu nu la wax tanwiinu tankiir mën na nekk màndargam lisim mooy tanwin nga xam ne baat bu ñu ko def muy nekkira te bu ñu ko ca deful rek maarifa la yenn lisim yu ñuy binaal yi lay dal ni ki siiba wéyhi dañ koy binaal ci kasra feeg maadaama alaman waaye su dee nakira na nag nga indi tanwin gu tegtale ni nakira la du du siiba wéyhi mi ñu xam looloo tax ñu daan ko misaale boo nee ñaari gaa yi dikk yoo xam ne siiba wéyhi mi ñëpp xam ànd ak beneen waay boo xam ne moom it noonu la tudd nga naan jaa a siiba wéyhi wa siiba wéyhin aaxaru seetal bi nga tanwin kooku mooy tanwinu tankiir jaa a siiba wéyhi mooy ku ñu xam ki wa siiba wayhin aaxaru ak meneenum siiba way maanaam beneen waay ay wa rajulun aaxaru ismuhu kadalik noonu dong la mel kooku mooy tanwinu tankiir waaye lisim rek a koy am de moo gu tamkiin gi ñooyam ci lool ak tankiinu muqaabala it lisim dong a koy am mooy nekk ci jamu muzakkari saalim du dëgg niki al muslimuuna nun go maanaam déggal sax ma ni muslimaatun laa wax du dëgg muslimaatun tanwin googu ci nekk du ne du dëgg nee ñu tanwiinu muqaabala la lu mu tollool nee ñu noon nga ca muslimoona bu dee mbooloom góor nee na mooy nekk ci muslimaatun bi di mbooloom jigéen kooku nag nee ñu moom la ñu ko tollaleel ah ci tawjiihu naxwi yi la rek am bu leen neexee am nañu ko mën kontar ni ko ah waay waay déedéet bu doon muqaabala kon fa muqaabil bi nekk rek lay ne moom itam te nuun gi moom gis nanu ni bu muslimoona amee alif ak laam di maarifa dana ci ne nga naan jaa al muslimoona su amul alif ak laam di nakira du tee mu nekk ci ni ki da nga naan ah, dégg nga naan haulaai ñii day muslimoona ay jullit lañu nee na du tee nuun nga ne fa nee na muslimaatun nag foo ci defee alif ak laam nuunam dootu ko am de dootu am tanwin gi de loolu nag dafa am ñu ko contrer ni waaye yooyu amul benn maanaa tawassu o naxwi yi nay la rek xas nañu ko wax daal qad qiila maa qiila in sidqan wa in kadiban fa ma ictidaaruka min qawlin ida qiila dégg nga mu des benn kon tanwiinu iwat kookoo tam kon nee nanu la tanwiinu tamkin baat bu mu dem lisim la niki rajulun tanwiinu tankiir baat bu muy demit lisim la niki siiba way hin mooy tabbi ci yenn lisim yu ñuy binaal yi buñ ca tanwiin muy nakira buñ ci tanwiin muy maarifa am na ci ismu feel yi sax soo bëggee ni nit noppil soo ko nee sax léegi baat bi maarifa la waaye soo ko nee sahin léegi sax nakira la te ismu feel rek la maanaam boo nee sax da nga ko ne noppil ci li nga doon wax lenn lu ñu xam soo nee sahin da nga ko ne noppil mutlaqan bul wax dara dara dara ayu kalaamin bu ko wax aywa koy muy tanwir tankiir ci lisim rek lay dem tanwiinu muqaabala ci lisim dong lay dem mu des benn ñeenteel bi tanwiinu iwat ci lisim dong lay dem tanwiinu remplacer dara dara ji lu muy doon mën nay wenn xaraf dong ni ki tanwiin gi ci jawaarin ak gawaashin baat yooyu maa laa sarif la woon ndax wasnu ma mafaa'ilu fawaa'ilu jawaariyu ak gawaashiyu te boobu wasnu baat bu ko am xam nga ni wasnu mafaa'il maa laa sarif kon warul woon am tanwiin waaye nag bu taarawut laafut dégg nga diisug dàmm gi mooy tax danañu ko dindi faf dagg yaa ji wacc xarafu mujj wow su ko defee ñu tanwiin la ko jëkk mooy jawaari yu nga ni jawaarin tanwiin gi moo remplacer wenn xaraf wow mën na remplacer ab kalima ñum ni ki wa in kullan wala wa kullun lama jamiun maanaam kullun ak baadun yooyu baat mu daaf lañ ci baat yi taqoolaafe lañu waaye suñu daggee mudaaf ilayhima danañu ko remplacer tanwin ñu di ko wax tanwinu iwat anil kalima wala anil jumlati nag ni ki yawma idin ak xiina idin yanti tanwin yooyu daal bu ci ne ci lisim dong lay dem wa tanwini wa nidaa ak woote dégg nga baat bu ñu ko dee woo lisim la waaye li ñu jublu ci nisaa bi maanaam ñu ni yaa fulaanu bi xaysu yutlabu iqbaaluhu boo xam dañoo bëgg mu wéy si jublu la boobu la waaye duxoolu xarfi mujaradan kat ah du tax nag ñu mën a àtte ni lisim la wa illaa yaa laytanii kuntu maahum kon dañuy daal di wax ni laytanii lisim la déedéet laytanii xaraf la kon nag laysa mujaradu duxoolul xarfi mutalaqan wa innama al muraadu bi xaysu yutlabu iqbaaluhu bihi nga ni yaa zaydu yaa qawmi waaw baat bu ñu mën a duggal yaa ni daa goo xam ne dañu bëgg mu wuy si waaye baatu yaa moom mën na dugg day ci lu dul lisim nag ni ki yaa lay tani wa al ak al al itam baat bu muy dem dana doon màndarga lisim ca baat ba waaye bu dee ñaari al al ñeent xaat la ñaar yi màndarga lisim la ñu doon ñaar yi ñoom duñu màndarga lisim ndax duñu muxtas wala yu addu min alaamaati cheyi illa ma kaana xaasan bi mandargay dara kenn du ca compter lu dul lu daraja jagoo kat mbubb mu weex bu fekkoon xale boo dajeel mu sol ko dootoo man ni kasol mbubb mu weex ma mooy diw waaw mandarga dara kenn du ca compter lu dul loo xam ne daraja doo nga ko jagoo léegi kon ali muarifa ak ali zaida mën na doon mandarga lisim ali muarifa ni ki jaa ni ki alfarasu wala ali zaida ni ki al yi dolliku ci alam yi ndiki al fadlu al xaaris al nu'maan yooyu al wa zikru al wa tarkuha siyaan waaye nag ci lisim rek lay dem mu def yaari al yoo xam ne nag moom jagoowul lisim al joo xam ne xarfu listifhaam rek la dafa remplacer hal nga naan al qaama zaydun bi maanaa hal qaama zaydun kooku xarfu listifhaam jagoowul